salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah yal na yàlla nangu sunu koor yal na yàlla nangu sunu koor ak sunu xeetu jaamu yàlla yëpp yu dul koor bi jaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni koy waxee nag fan yi nga xam ne ñu ngi nekk ci fukki fan yu mujj yi nga xam ne bu masaana ñëw ci weeru koor yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daan def ixtikaaf ixtikaaf mooy sax ca jàkka ja nga xam ne daanaka amatuloon beneen soxla lu dul jaamu yàlla rek tuuti la doon nelaw loolu nag dafa nekk jaamu yàlla boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam fukk ñaar fan yu mujj yëpp yu njëkk yëpp ci koor gi a ah, daan na woor daan na def ay naafila waaye su demee ba mu des fukki fan rek Aïcha nee na daanaka ci jàkka ji rek lay sax te ixtikaaf nag mun nga ko def fukki fan comme ni mu ko daan defee mën na yées benn fan minimum daal mooy la gën a ndaw mooy def ixtikaaf benn fax benn fan quatre heures maanaam bu timisee nga dugg ci jàkka ji bala ngay génnaat timis suba xëy na bu lay génne ci lay génne ci jàkka mooy yeesal njàpp pour ñëwaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag moom fukki fan la ko daan def bon la ci gën mooy def ko fukki fan waaye soo ko mënul fukki fan nga seet lan nga ci man def ci ixtikaaf jamono jamono ji nag suñu yomb ñu nekk ixtikaaf yombul néew na looy gis nit ñi di ko def ndax xëy na léeg am na ñoo xam ne ixtikaaf waru leen parce que boo waree joxe dépense te amoo dépense boo jox waa kër gi bu boobaa ah ixtikaaf waru la priorité bi mooy joxe ji dépense moo nekk gën a nekk priorité ci nga def ixtikaaf moo tax tey boo doon def ixtikaaf ba ci yàgg ñu ah kër ga dara nekku fa daggal ixtikaaf bi génn dem uti loo jox njaboot gi bon li joxe loo jox njaboot gi moo gën a nekk priorité ngir ixtikaaf ndax ixtikaaf lan la sunna la waaye rawatina nag sunna boo xam ne dafa nekk ci weeru koor nga xool ne weeru ko ci guddi fan yi fukki fan yi mujj yooyu waxoon nañ la si démb ne la guddi laylatul xadar si la nekk mu nekk <coughs> guddi gu barkeel ndax yàlla wax ne inna anzalnaahu fii laylatin mubaraka boo xoolee alquran yàlla nee na ci guddi laylatul la wàcc mi guddi gu barkeel ndax lu tax nee na fiiha yufraxu kullu amrin hakimin mbir yëpp ci guddi googu la ko yàlla di tàqantal ndax ginnaaw ba yàlla bindee dafa ay dogalam nee na dafay def guddig laylatul xadar bu jot mu seet la war a xew ci at ma mu joxe mission yooyu malaaka yee ko war a dox mu ne guddig laylatul xadar nag li war a am tam xarit tam xarit di dellu siwaat ci guddig laylatul xadar lay wàcc kañ lañ commencé exécuté jour laylatul xadar bon ñu war a judd ci at mi yëpp ci guddig laylatul xadar lañ sunu borom di programmé niki noonu ñu war a ñibbi it guddig laylatul xadar lañ leen di programmé niki noonu taw yeeg wërsëg yi yëpp ci guddi laylatul xadr lañ koy programme moo tax guddi la goo xam ne su ñëwee wala balaa mi ñëw sax julli di ñaan saa su nekk ndax suñu ñaanee suñu boroom moom mooy seet li ko neex mu saxal ko mooy seet li ko neex mu changé ko bon jullit bi fu mu toll rek yàlla jox na ko autorisation pour muy ñaan nga gis ne ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa ci li doon wax ci wàllu dëkkandoo mi ngi ñuy dénk dëkkandoo ndax dëkkandoo wax na ne jibril daana ko ko dénk ba mu jàpp ne sax su génnee àdduna dëkkandoom da koy doon moo tax jëlee nañ ci Omar Bunaas daan na wax ki ko daan liggéeyal ne ko soo reetee gàtt mu ne ko ah, mu ne ko na nga ci jox sama dëkkandoo yahood yi maanaam ndax ñoom dëkkandoo ay yahood lañ woon waaye mu ne ko boo reetee xar sax. wala wala euh, nag wala dara mun jëlal ci yàpp yi nga jox leen ngir lan ngir sàmm dëkkandoo ak rafetal dëkkandoo <coughs> gis nga am na sëtu yonent bi bu tuddoon Xasan radiyallahu taala anhu dafa dëkkoon ak benn yahud yahud bi Xasan da doon rafetal toujours jëme ci moom waaye seen kër yi dafa dafa taqaloo yàlla def nag yahud bi foos foosam bënn di verser kër Xasan asan dafay gas su si kii mu mu koy tànq di ko sotti ci foofu di ko sotti yahud bi benn bis mi romb rek gis asal mu taxaw ci buntu kër gi mu ne ko waaye yéen seen kër gi la fi xeeñ moom li fi fi xeeñ xasaw na mu ne ko pourtant li xasaw de li xeeñ sa kër lay jógee mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne dugg xool gis na nekk te foosam moo bënn foofu mu moom muy ut mi wax kii bu génnee ñañ koy tànq di ko sotti di ko di ko am fu koy suul ndax bugg ko mu ne ko ah mu ne lii kañ la mu ko li yàgg na parce que bugg ma la ko woon wax te fekk ne mënoo ko defar bu boobaa mu nekk kersa ci yow moo taxoon boobu ba léegi waxuma la woon dara yahut bi dem këram xool <coughs> xalaat xat gi xaj gi xaw ma ñaata fan mi ngi koy romb fii mu koy xeeñ kii mënu ko ko wax ndax rafetal sama diggante ak moom neexul ba neexul waaye lislaam daal mooy mooy waaja nee na yoxol bi noonu la génn waatee ñëw ci asan surtout yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bon la ko dugal ci diine mooy rafetal bu mu rafetal digganteem ak dëkkandoom moo tax l'islam boo xoolee toujours lu koy gën a évoluer ci àdduna bi mooy nit ñi julit ñi comportement bi ñu yore ci biir nit ñi waaye bu fekkee ne da nga nekk julit boo xamante ne nii toujours sa dëkkandoo mi ngi muslu ci yow mu ne bu boobaakat nekkoo dëkkandoo bi gën ci dëkkandoo yi moo tax Abdoulaye boobu nee na kat moom yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan dénk dëkkandoo di ko ko dénk ba moo tax mu ne surgaam boobu su rayee gàtt na ci may dëkkandoom moo tax mu ne ko bu fekkee ne sax gàtt bi wóor na rey nga ko te mënoo ci may sa dëkkandoo na nga fexe ba boo ko toggee bokk nga yàkkal ko ci ngir rafetal dëkkandoo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ne ku gëm yàlla gëm bis bu mujj ba na ngay wax lu baax ci sa dëkkandoo wala nga noppi del na ku gëm yàlla gëm bis bu mujj ba mu ne ah mu ne na teral sa dëkkandoo del waxati ne ku gëm yàlla gëm bis bu mujj ba mu ne boo amee gan na ko teral yëpp ngir lan ngir rafetal ci ñi ngay jëflanteel sallallahu alayhi wa la ñu jàngal mu ne nag nga xam ne dañuy wax ne àq dëkkandoo yonent bi sallallahu alayhi nee na sa dëkkandoo su la lebee na ko lebal waaye nag nay fay de dëkkandoo boo xam ne su lebee du fay ah kooku moom am nga droit am na ngant waaw ah, leb nga ma sama 1000 francs fayoo ma suba jot nga ñëwaat abal ma 500 fayoo ma ah ma toog di xaar nga ne ma woon bu dimanche toog naa ñaari dimanche waxoo ma dara waaye bu ëllëgee boo ñëwee nag am naa droit bañ ndax lu tax parce que da nga leboon te fayu waaye bu la wóoree ne yow xam nga ne kii ngant rek ma ko téye waaye soo ko amee dimbale ko te yàlla tax boo ko mënee sax may ko ko waaw la ñëwee di leb soo amee sax may ko ko que boobu mooy bi gën. moo a mu ne su la lebee na ko lebal bon àq la ci dëkkandoo su la sa dëkkandoo lebale lebee yonent bi saa salaam nee na nga ko lebal mu ne ñaareel ba mu ne sa dëkkandoo su la fekkee na woo na la na nga ko wuyu bon boo toog sa dëkkandoo ko dégg mu lay woo te léegi da ngay toog dëkkandoo bi nga dëkkal ci kër gi mu lay woo nga dégg ko ne pat waaw bon baaxul bon sa dëkkandoo su la woowee rek wuyu ko mu ne ñett ñett ñetteel ba sa dëkkandoo su feebaree na ko seeti mu ne ah mu ne su sàkkoo ci yow ndimbal na ko dimbalee mu ne yit juróomeel ba sa dëkkandoo boo yëgee ne kat maanaam li lore laal na ko maanaam musiba dal na ci kawam mu ne na ko dem mastaw boo yëgee ne it am na xew bànneex mun ne da dem dokkeel ko waaw bu amee naqar na dem masawu masawu ko waaye su amee bànneex na nga dem ndokkeel ko mu a yit nga bàyyi ci xel su fekkee ne sa dëkkandoo génn na àdduna it nee na ko seede boo xamee ci moom lu baax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee la nga am nga génn àdduna sa ñetti dëkkandoo seede rek nee sa borom du la mbugal ci bàmmeel te nee na nga jëm bon rafetal ak sa dëkkandoo moo tax bu sa dëkkandoo àdduna doon jullit nga jëflanteeg moom lu rafet ñëwal seede ko ndax ñetti dëkkandoo ku ñu seede rek lu rafet mucc nga loolu nag lu koy waral da nga ko rafetal ba ngay dund moo tax ñu mën laa seede lu rafet waaye koo def jëflantewul moom lu rafet du la mën a seede lu rafet moo tax mu ne bon sa dëkkandoo su génnee àdduna nga dem seede ko waaye it bu fekkee ne dafa tukki nekku fi mu ne ah mu ne sa dëkkandoo bu nekkul na ko wattul ginnaawam këram ak njabootam na ko ko sàmmalee waaw mu uuteeg kële dem ki mu wax fële démb kay dem di gannaaw dëkkandoo jabar dëkkandoom bon daal dañoo bëgg sa dëkkandoo su génnee su génnee tukki na fexe ba na ko sàmmal këram sàmmal ko njabootam waaye it mu ne bu ko lor sax ci sa xeetu cin yonent bi saa salaam soo amee sa dëkkandoo bu ko lor ci sa xeetu cin mooy ngay togg loo xam ne xam nga ne moom mënu koo togg te xet gi dafa dem te du ko doo ko ci may baaxul dañoo bëgg booy togg dara loo ne xam nga ne amul ko mu ne bu boobaa yow boo toggee na ko ci yàqal ngir lan ngir rafetal booy rafetal sa diggante ak sa dëkkandoo moo tax daal moom sallallahu alayhi wa sallam Abu Hurayra nettali ñu nañu nañu na yonent bi sallallahu alayhi wa nee na daal Jibril daana ma dénk may rafetal dëkkandoo di ma dénk may rafetal dëkkandoo ba ma jàpp ne su génnee àdduna dëkkandoo def may doon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dee lu ñu wax ne ci waajooju ñuy tuddee Abu Hurayra bi sallallahu alayhi dafa ne ko wa ahibba li naasi ma tuhibbu li nafsik mu ne ko yow Abu Hurayra mu ko ah ne bu njëkk ba kun wari an loo war a njëkk a def da nga na nga sàmm <coughs> waaw na nga sàmm mooy fexe ba li la yàlla tere nga bakku mooy li jiitu ndax saa yoo déggee ñu wax ragal yàlla ragal yàlla rek mooy bàyyi nga tere yàlla yi def nga santaane parce que nit boo xasee ragal yàlla rek ci nga leneen lu ñëw rek bénéfice la bi tege ci kaw waaye boo ragalu yàlla boo doon def ak ak li ci biiram te ragaloo yàlla moog dara ñoo yem yàlla nañ ci yàlla bon day mel ne yow mu bëgg a tabax sa benn immeuble 3 milliards te amul fondement amul fondement waaw amul loo ci def day day daanu loo ci def lu mu gën a diis gën a gën a gaaw daanu rek waaye bu fekkee dafa am fondement bu baax mais ragal yàlla loo ci teg rek bénéfice lay nekk bon moo tax toujours yonent bi sallallahu alayhi boo xoolee ndénkaanam yëpp wala alxuraan dafay wax lazina amanu mooy ñi gëm waaw ndax lu tax xam na ne gëm mi ragal yàlla googu moom rek moo lay tax nga mun a mucc moo tax mu ne ko yow Abu Hurayra mu ne ko ah, na nga nekk ku sàmm bu boobaa heure boo sàmmoo rek ba bàyyi tere yàlla yi takkun ahbada naas yi da ngay bokk ñi gën a mën a jaamu yàlla ci nit ñi bëri na ñoo xam ne lu tax mënuñoo jaamu yàlla ñaaw-ñaaw yi ñuy jëf ñuy jëflante ak nit ñi loolu tax mënuñoo jaamu yàlla buñ bëggee jaamu yàlla sax dañuy seen day nekk seen xel ñu bëgg ko mais duñ ko mën def parce que lu tax parce que jëflante bu ñaaw bu ñuy jëflante ak nit ñi moo tax loolu jullit def ci war a bàyyi xel mu ne it yow Abu Hurayra wa ahibba li naasi maa tuhibbu li nafsika na nga bëggal sa bopp li nga bëggal nit ñi waaw mën naa am lu baax waaye diw bu mu am lu baax kooku jullit du ko def mu ne boobaa boo bëggalee nit ñi li nga boole sa bopp rek takkun mu'minan nga bo nga nekk ku gëm yàlla mu ne beneen bi mu ne it wa ahsin mu jaawarata man jaawaraka na nga rafetal sa dëkkandoo ci ki nga dëkkal na nga ko rafetal mu ne ah, mu ne ba boo ka ba boobaakat boo ko rafetalee boo ko rafetalee takkun musliman nga doog a nekk jullit bon jullit daal pour mu mën nekk jullit dangay rafetal sa diggante ak sa dëkkandoo mu ne it wa axil li daxik na ngay néewal looy reetaan looy xaaxataay waaw fu ñu waxee rek nga xaaxataay ba say dëkkandoo yi sax dégg nga xaaxataay loolu ab jullit def noonu mu ne ko na nga koy moytandiku ndax lee nag inna kasrata dixki yumitul xalb nee na reetaan bu bari dafay rey xol te nit ki bu xolam dëgëree rafetal digganteem ak nit du yomb nit ki bu xolam dëgëre jaamu yàlla du ko yomb bon lii rey sa xol jur bi ko war a moytu bon yii bokk na ci yi nga xam ne moom ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkoon ko ki ñuy wax Abu Hurayra yàlla nañu yàlla defal ak dégg ak topp lépp lu ci jaamu yàlla mu néew bari yàlla ko yàlla nang